ma nee na bilaal doo jóg ci lii feeg yaa ngi jaamu yàlla muhammad feeg yaa ngi ko topp yow dootoo jóg ci loolu xanaa ba mu nga ñëw jaamu laata ko zaare yëpp bilaal moom di muñ an allahu ahad amar ibnu yaasir ak baayam yaasir ci boppam ak yaayam su ma yetta mooy ki ñu reyoon moom itam bani maxzuum ñoo leen moomoon dañ leen daan génne génnee ci lakku njolloor wi teg seen yaram yee ca kaw beñ bu tàng ba di leen mbugal yoo xam ne moom itam yu metti la xabaab ibnul ars ñëw na ci yeneen ti benn bés di tawat di tawat yeneen bi ne ko muñ leen am na xeet yu leen jiitu woon daanañ leen mbugal ci seen diine ñu daan muñ alquran أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب من سورة البقرة حمزة بن عبد المطلب لكل دول الدين أبو جال Abu Jaal ba mu Hamzatu dafa dégg benn jaam bu jigéen bi di jébéer bu Abdullah ibnu ma nga ca këram kër gaa nga ca weti safa mu dégg jébéer baa ngay wax naan Abu Jahl day dem na ci Kaaba ga toog faag nitam ña ah Muhammad ñëw mu lor ko dóor ko jog ci loosam sotti ko genn mbàqu gëlam gu nëb ba mu déggee muy wax loolu moom Hamza fekk ma nga fa jaar gàddu ak xalaam gàccoo xala gi ay fettam ne dafa rëbbi woon mu rëbbi amul dara amul dara mu dellusi si dégg jébér bi di wax loolu jébér bi ne yaa aba amarata noonu lañ daan dàkkantelee Hamzatu dañ ko daan wax abu amara ñoom arab dañuy def bu amee doom seet ci di la ko dàkkante naan bàyyu diw mu ne ko ey aba amarata soo gisoon sa doomi mbokk yi Muhammad li ko Abu Jahl def tey euh, mooy Abu Jahl mooy Amr ibn Hisham ibn mughira ibn abdullah ibn makhzum kon day tay da nga am lu la soof la tok ñu lor ko ko def ko lu nekk te ken waxut muhammad tontu hamza dal di mer lol ca lol dal di genn nak jëm ci abu jaal fekk ko ma nga tok ci quraysh mu dal di jël yet bi gi rek door ku ci boppi Abu jal mu dal di deret ji génn di ne ko da ngay da sama doom te maa ngi dund da ngay sama doom te maa ngi dund man maa ngi dem ci diine ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ah bani maxzum jóg na dem ci Hamza bëgg nag sot bani maxzum mooy giir gi Abu Jahl bokk ñu bëgg sot nag ne dañuy fayu ci Hamza ni mu def Abu Jahl ndax xaañ na ko xaañ xaañ boo xam ne bu bon la bu ñaaw la nag ba ñu ñëwee ñu ne ko yow lii lan la mu ne kii moo xas sama doom xas yoo xam ne yu metti la ah Quraysh xam ne nag kii jàng na dem na ca diine Muhammad te bàyyi ne leen te xam nañu jàmbaar ju mel ni Hamza bu xasee dugg nag ci am mbir ah, kon lislaam dina gën a am doole loolu mooy dara ci jébbalug Hamza gàddaayu ñaareel ga ak ah, gàddaay gu njëkk ga jëm atam juróomeel ma ci ganaaw bu ñu yónnee yonent bi mu am juróomi at loolu mooy six cent seize dal nay tar kon lolu euh man nañu wax ni ci atam juromel ci gaday ga du gaday gi sax waye moy ci bañ ko yónnee bam am juromel muy 616 lor yi ñu lor yonent bi gëna a yokku yonent bi digal sahaba yi ne na ngeen gaday ngeen dem Habasha ben dekk la ci Afrique muy Éthiopie tay bobu fukki goor ñoo gadayone ak ñeenti jigéen ci saaba yi Othman ibnu Affan ci la bokkoon Abdourahman ibnu Awf Zubair ibnu Awam ñii ci lañu bokkoon ak ñeneen ba ñu yeggee Afrique mu di Habasha muy Éthiopie buur ba fa nekkoon keroog buur Habasha teeru na leen teeral na leen dimbale na leen ñoom nag foofu la ñu toog lu war a mat daal ñetti weer ñu dégg ne lislaam ngay gën a tasaaroo mu ngay gën a màgg ñu door a jël euh, ci waxtu woowu Quraysh gën nañoo yokk nag seen seen lor yi ñuy lor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak seen ak dëngee ak seen ak téye nag ñu tàmbali nag euh, di def loo xam ne mësuñu koo def ci xeetu métital yonent bi digalaat na nag saxaaba yi ñu gàddaayaat demat xabasa beneen yoon loola mooy atam juróom-ñaareel gannaaw bi ñu ko yónnee muy six cent dix-huit ci juddu Isa gàddaayu ñaareel googu dem Habasha euh, juróom-ñett fukk lañu woon ak ñett ci ay góor ak fukki jigéen ak juróom-ñett Jaafar ibn Abi Talib moo leen jiite woon keroog ak euh, soxnaam sa Asmaa bintu may Usmaan ibn Affan ak soxnaam ruqiyat bintu rasul zubair ibn al awam ak umu habibata bintu abi sufyan ñii ci domi bokkoon doomu abi sufyan ci boppam fekk na dugg na ci diine mook jëkkëram ba gàddaay ba quraish gisee nag ne léegi kat mbir maa ngi bëgg a soppeeku ndax gaaña gàddaay nañ dem nañ habasha aman na buñ fa yàggee dugal fa diine aman na nit ñi ñuul ñi ànd ak ñoom te ñu ñuul ñi kat bu ñu duggee ci mbir seen gëm lu dëgër la dootuñ ci génn te kon danañu jógee foofu ñëw xeex si ñu ba jëlee ñu fii ci màkk jëlee suñu nguur ñu ne loolu de du baax ñu ne kon ni ñuy def mooy nañu ni ca buri xabasa wane ne gune yooyu fu ñëw suñuy gone leen dañoo të dañoo dogab tënk rek nañu nañu leen delloo te it na wane ne ñu jubadi lañ su ko defee comme guur la ñu yónnee ko ay kado di jógee Makka ak yooyu aman na rek mu nangu loolu ñu ne kon nag dañuy yebal Abdullah ibn Abi Rabiata mu jiite loolu boo ko jiite loolu dal di dem ba mu àggee waxam ja sottiwut Najaasi torox toroxal leen làq julit ñi mu làqoon bañ na du leen làqi dal di xam dëgg-dëggi mbir mi dal di xam ne te Quraysh jaamu ci nekk yónnee ko Muhammad alayhi salaatu wa salaam Najaasi déglu na ci lu bari déglu na ci Jaafar ibn Abu Talib mu di ko waxal li ñu wax ci Isa ak li ñu wax ci Mariama wax jooja neex Najaasi lool mu teral leen dalal leen ci waxtu woowule Omar ibn al-Khattab boobu fekk na jigéenam ba Fatimata bint al-Khattab tuub na mu ngi ci lislaam ak jëkkëram yu ñu naan Saïd ibnu Zeydin ñoom ñaar nag dañu doon nëbb seen tuub ndax Omar la ñu ragaloon ah benn bés benn waay buñ ñu naan Nuaymi ibnu Abdullahi Naxaam benn waay la ci giir ci mbokki Omar ñu bokk ci bani Adi ibnu Kaab te Omar a ngi bokk ci bani Adi moom it dafa tuuboon waaye moom it dafa doon nëbb tuubam moom euh, Nuaym Nuayma nag da koy nëbb ndax ma ngi ci fami Omar oh, te ñoom Omar lañu ragal léegi ibn al ars mo moy dem ak dik ci bint al-khattab ak said ibn Zeydin di jangal al-quran di len waxal di len expliquer dal di len jangal ni al-quran al karim Omar genn benn bes, gaccio xalam téye ay fettam ak tungaram ne dafay dem ci yonent bi moom lay seeti ak saaba yi mu rey leen ndax ñoom dégg na ngay dajee ca benn néeg fële ci kaw safa ci kër arqam ibnu abil arqam te boobu jullit ñi ni ma la ko waxee lu mel ni ñeen fukkaat tuuti lañu ci ay góor ak i jigéen boobu nag Hamza ibn Abdul Muttalib fekk na tuub na mbooloo ma ma nga ca Abu Bakar ibn Sadiq nga ca Ali ibn Abi Talib nga ca ak leen ci saaba yi ñi nga xam ne jënd gàddaay ñoom xabasa yëpp boobu ñu nga fa nooy mu nag comme tuuboon na tey te di ko nëbb ndax ragal Omar mu taseeg Omar ibnul Xataab mu ne ko Omar foo jëm mu ne Mouhamed lay wër moom Mouhamed mi nga xam ne yéefar la yàqkatub diine la teqale na Quraysh defloo na suñ xel yi ayibal suñu diine ŋàññe suñu yàlla ma demee rek rey ko nooy mu ne ko taskere nga Omar yow kat sa bakkan war na la yaakaar nga ne mën ngaa dem rey rey rey Muhammad bani Abdul Manaf yëpp bàyyi la ngay daagu ci ci biir màkk yaakaar nga ko yow kay soo amee looy def dellul ci sa kër ndax yow sa waa kër yëpp dugg nañ ci dinay Muhammad mu ne ñeen sama waa kër mu ne sa tan ma sa tan am tan mooy jëkkëru jëkkëru sa jigéen bi jëkkëru sa jigéen bi muy muy Saïd ibnu Zeydin mu ne ko tuub na mu ngi ci Muhammad sa jigen ba fatima bintul khattab momitam itam tuub na ñoom ñëpp ngi ci ngi ci Muhammad tey ya am nga lo def mu ne nga mu ne waaw mu ne ah, jeex Omar delu nak jëm kër jigen ba mu fekk fa ibn al ars ma ngi leen di jangal alquran yore wenn kayit wu ñu bind suuratu ba ñu déggee yëngu Omar Omar a ngay ñëw mu daldi di ko ñu daal di ko nëbb Fatimata jël kayit wa teg ci ron ay luppam teg ci tànkam xabaab daw dugg ca pantre ba tëju ñu daal di toog mu dikk ne carax ne lu ma dégg ay mën a ba ma fi dégg mun mun gi ma dégg ngeen mun mun lan la mun ñu ne ko déggoo dara mu ne ah am na lu ma dégg yéen dégg naa ne dugg ngeen ci ci diine Muhammad mu ne ko déedéet mu ne ah kay dégg naa ko ñuy wax rek mu daal di jël goro ba daal di ko njët njëtt yoo xam ne yu metti la jigéenam bi daal di ñëw muy Fatimata bintul Xattaab téye ci loxo Omar foqar ci ko ne ko moo loog yow Omar fekk nit ci këram di ko néewal doole te defut lu mooy mu ne dafa gëm yàlla Omar daal di geesu jigéen bi rek bitti loxo ko am ko bitti loxo ah, bakkan bi toj deret di génn ndaw si nag daal di mer daal di ne ko noo tey dugg nañ ci dinay Muhammad te dootuñ ko bay Omar loog yow yaa ko ñàkk jom bay fi góor ñi yow di door say jigéen fekk say góor yi seen kër di leen duma ana njàmbaar gi ngeen di wax boo jàmbaaroon kay yaa ngi koy jëmee feneen waaye doo ko jëmee fii xas ko xas ko xas ko bu baax baax Omar nag daal di gis deret ji ci jigéen bi mu xaw a tuuti ne ko jox ma téere bi bi ma dégg ngay jàng mu ne ko wóoluwuma la ci sax da nga koy yàq Omar daal di génn ci yàlla Quraysh yi dana danaa ko delloo si du ma ko yàq ñu ne ko wante yow sobe nga ndax yéefér nga te ak li alquran la ku laa ba koy yore Omar dem sangu ji daal di ñëw ñu jox ko téere ba mu tàmbali nag di jàng téere bi lii moo ci nekkoon taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa illa tadkiratan liman yaxsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت سرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو ظالم وجنك له الأسماء الحسنى عمر xusna كو jàng ko ba foofu dal جي nekkaw موتد xabaab dégg waxi Omar Joju, te ma ngi tëjee woon ci pantre bi ragal mu ne ah kii kat boo demee xelamam ci lislaam mu daal di tijjeeku génn daal di ne eey Omar géej naa ci yàlla ne maa ngi yaakaar nga bokk ci ñi nga xam ne yàlla jagleel na leen ñu wuy si yonent bi ci li muy wootee jëmee ci yàlla maa ngi nga bokk ci ñu yàlla jagleel ñaanu yonent bi ndax démb rek déggoon ko muy ñaan naan yow yàlla yal na nga nooyal kenn ci ñaari Omar yi muy Abul Hakam ibnu Hisham wala Omar ibnu Alxataab wallaay Omar yaakaar naa mu nekk yow Omar ne dama bëgg ngeen tekkal ma fii nga xam ne fa la bi nekk tey ma dem fa su ma fa demee man bëgg naa dugg ci jooju diine waa këram dal di kontaan nag xabaab ne ko ñu nga ca ibnu Abil Arqam ca kaw montagne safa di jangal quran ak leuf ci sahaba ya omar ibn al-khattab gaddu jasib ma nga jëm nak ci béréb boobu bu mu ñëwee ba yegg si fëgg ñu yornu kan la ñu ni omar ibn al-khattab ñepp tiit ni omar la omar la omar la ñepp taxaw hamza omar la moy lan na nek nako nek delu ci la mu nekkon ngeen bayyi omar su ñëwee ak jamm baax na bu ñëwee ak musiba ma ray ko mu jeex ku ne demal ci la nga nekkoon Omar dugg si yeneen bi bu bu dugg si bu ko kenn gaarlu bàyyi leen di ko seetaan Omar daal di dugg si daal di commencé di dox mais yooyu ñu fay ko muy xuus ci digg saxaaba yi nekk ñu yore jaaseem kenn waxu ko dara ba jege yeneen bi yeneen bi daal dina bërët ba mu jegee yonent bi nag mu daldi di ne bëreet jóg taxaw dal di boole ñaari lafi kaalaam ñaari lafi kaal omar gi lambay gi mu daldi ko boole mel ni ko poñe xëcc ko bu baax da koy jës bi xëcc bu baax ci boppam daal di ne omar loo def mu omar xanaa doo daytalu ci sa kéefér gi mu omar da nga nara nek ci kéeféer ba musiba dal ci sa kaw omar ne yow mi yalla yoni dama ñew tay ngir gëm li la yalla yoni li ngay jëlé fa yalla dama ko gëm yenente bi ne allahu akbar sahaba yeb dal di ko dal di ne allahu akbar ñom ñep ñu wolu ne kon omar dugg na ci l'islam ñu dal di tekkaliko nak ñom ñap ku ci nek am teranga ku ci nek am mbekté ci la ñu xamee euh, ne Omar dugg na ci diine dugg gi Omar jébbalu dugg ci lislaam ak Hamza bin Abdul Muttalib booba la saaba yi kontaan xam ne ñaari jàmbar yi day comme ñu ngi ci diine ji danañu aar yonent bi danañu ko tere noon yi dootuñ ko mënal dara ci waxtu woowu Abdullah ibn Abi Rabiata ma demoon Habasha jiite woon délégation Quraysh pour ñu delloo ko saaba ya gàddaayoon ñibbisi na ak amru ibnul aas ñu ñëw ci quraysh ak seen échec ne leen ah ñu ndewaay leen doon toppatoo sottiwut ñu ndewaay daanaka najaasi daf ñoo toroxal delloo ñu delloo bu ñaaw ah ñu ne ko fii day musiba nga fekk ndax fekk nga Omar ibnul Xataab tuub na ak Hamza ibn Abdul Muttalib ñëpp topp nañ Muhammad Quraysh ne ah kon day léegi foog ñu yeneen pexe ndax day bu amul di dootul baax de yaakaar naa sax du baax abdullah ibn mas'ud nee na masunoo ñemee julli ci kaaba ga dem fa julli mbooloo mukk waaye keroog bi omar tuubee keroog nag lañ ñemee ànd nañ nekk mbooloo dem ci kaaba ga nag julli mu ñu quraish yi di ñu ko aaye ñu ci kaaba ga ñu taxaw ñu dóorante di dóorante di durante ba ag ci kaaba ga liqam nodd fa liqam fa julli lolu ñu ko am ci omar ak xamsatu gëna xamsatu ak omar nak saaba yi ci lañu gaday ba xam li bëggoon mënatu ko am ni mbiram l'islam tambali na siw ci giir yi ni itam yenn musibe bo sagane dina wacc ci ñoom Quraysh daje nag benn daje e, ne léegi nag li ñuy def mooy du yonent bi rek waaye Banu Hashim yëpp dañuy signé benn kayit génne leen dëkk bi ku jaay ñoom duñ ci jënd ñoom buñ jaayee kenn du jënd suñuy takk sëy duñ leen woo duñu takk ci ñoom suñuy takk sëy duñ leen woo duñ takk ci ñun noonu daal lañuy def loolu mooy téereb dog ak bokk ga Quraysh nag signé ko Bakr génnee banu Hachim ber nañ leen ber nañ banu Hachim ber banu Matlab ñoom ña nga ca penku Kaaba ga fu ñaan Chaabu Abu Talib ba tey Chaabu Ali lañ ko tuddee kenn ci ñoom du génn ci ci banu banu Hachim lu mooy Abdul Uzza Abdul Uzza mooy Abu Lahab Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib moom la ñuy wax Abu Lahab kooku rek mooy ci rëcc ndax moom ci yéefar yi la bokk waaye ku muy loolu ci banu Hachim rek ber nañ la ndax banu hashim yëpp gëm nañ yonent bi ak banu matlab ba mu des abdul uzza ibnu abdul muttalib moom la ñuy tuddee abu lahab loola def nañ ci ñetti at ñetti at ak téer gu dëkk bokk googu am na léegi nag banu hashim dara ci xéewal du yegsi ci ñoom marché bi dal nay wow ak ñoom ñu bind ak téere ba dem taf ko ca kaaba ba léegi nag benn bés Quraysh daje ay xalel ne lii nuy def daal daanaka du pexe sunu bopp sunu dëkk ñu sàkk ci ñi ñuy ber di leen di dogu te ku ci nekk sa najaay nga fa sa baay nga fa sa baay tax wala fa nga nar a tekkee jabar lii daal du sotti dañ koy dindi xale yooyu nag ki ci jiitu mooy Hisham ibnu Amr moo ne lii dañ koy dindi Zuhayru ne ko man dinaa la dimbale ibnu Umayyat mu Muxirat moo tax am ibnu Adi ne man dinaa leen dimbale abul buxtari ne ak man hisham ne ak man zumaata eh, ibnul aswad ibnu mutalib ne ma ak man ñu daal di nag waaj tëral nag seen pexe daje ci xajjuun ci guddi ci guddi xajjuun ma nga ca tënku màkk ca kaw ca tund ñu daal di noonu la ñuy def ñu ne ëllëg Quraysh am na daje bu Quraysh dajee ba Abu Jahal ñëw suñu waxtaanee rek dana ci saaroo ci biir mbooloom kenn day jog fee ba bu Jahal waxee ba pare rek dëgëral kenn jóg fee ne ko fen nga jóg ne ko fen nga kii ko fen nga bu matee juróom rek mbooloo mi day tas ñu ne loolu day pexe la ñu ne leen def loolu ah ñu daje bañ dajee Abu Jahl ne Quraysh yéen a ngi ci dëgg li ngeen def Banu Haashim Banu Mutalib lu baax la bu yàggee nu yar leen sa gune bu réewee da koy yar danañ dellu si ci dëgg di jaamu si Laat ak Uzza rek benn xaleel jóg di eey waa mag di lekk ñam di waddoo ay malaan yu rafet banu Hashim toog faa di dee du ñu jaay du ñu jënd du ñu lekk loolu du yoon Abu Jahl li nga wax du dëgg dafay dog ak bokk loolu rafetul xale bi daal di ne wallahi man de du ma toog tey lu may téere bi dinaa ko xotti dindi ko tasaare ko ndax téere bi dog bokk rek ak tooñ la Abu Jahl ne ko fen nga wallahi doo ko mën a xotti doo ko mën a dindi zamaatu jóg na ko abu jàll fen nga dana ko dindi te maa ngi ànd ak moom wallahi yow itam yaa gën a mën a fen abul baxtari jóg ne zamaatu wax na dëgg abu jàll yow yaa fen ñun bëggun loolu moo tax am jóg jóg ne abu jàll yaa fen gune yi ñoo wax dëgg su ko defee mbir ma daal di tasaaroo mbooloo ma tas ku nekk daal di jël euh, say dàll dem xale ya dem Hisham ibnu am ak guneem yooyu le dem ñu dindi euh, téere ba tas bala ñuy dem nak ci guddii dañuy dem ci yenente bi di sok moom ne ko nun dey tëral nañ suñ pexe bu suba téere bi dañ koy dal di dindi ji rek yenente bi ne waaw waaye bu ngeen demee lépp lu ci nekkoon na mu bon ngeen fekk max ga lekk na ko te lépp lu bon la woon turu yàlla wa ca bobba rek mooy bismika allahuma loolu rek ngeen cay fekk lépp jeex na daanaka joratul xotti ndax jeex na waaye ngeen dindi ko rek ba ñu ñëwee nag fekk ko nii nga xam ne noonu la ko yonent bi waxee alayhi salaatu wasalaam ibnu hisham nee na ki bindoon téere ba ca loxoom di yaxaloon ko ci ndigal Quraysh waaye loxoom la woon muy Mansour ibnu Akrimata loxoom dafa sem loxo ba ko bindoon dafa mu jëddee daal di sem loolu mooy téere ba Busiri wax na ko nee na fekk nañu wa biha axbara nabiyu wa kam axraja xaban lahul bu xiba mu ne ci téere ba ci la ñu fekk la yeninte ba solo woon nam leen solo woon mbir ma te booba demagu fa bañ demee fekk nañ la mu waxoon amee na mu waxoon ci la ñu xamee ni kii yàlla ku yónni ndax day wax ci xëy bu lu ñu wagut bu loola ñëwee dëppoog la mu waxoon gannaaw xew-xew boobu am na lu ñuy tuddee israawul miraaj mu di rañaan yenente bi alayhi salaatu wasalaam rañaan bi moom itam xew-xew la bu rëy mën nga ne moo gën a màgg ci xew-xew yi ci woote jëme ci lislaam mu ngi amoon ci six cent dix mu ngi dëppoo juróom-ñetti at ci bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën nga wax ne ci xew-xew yi gën a rëy ci woote jëme ci lislaam la bokk maanaa xew-xew yi gën a màgg mooy xaaru Hira yónnee ko yonent bi benn bi mooy Israa wal Miraaj beneen bi mooy gàddaay gi beneen bi mooy xare yi beneen bi mooy génn jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi ñoo gën a rëy ci xayaatu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam léegi nag gàddaay gi lu tax euh, rañaan bi lu tax rañaan di am euh, Cheikh Mutawalli Sha'rawi gis naa ko mu bind di wax naan ba yàlla yónnee yonent bi jox ko diine juy mottali diine yi diine ju boole lépp boole jamonoog béréb diine joo xam ne yonent yëpp dugg na ci biir diine joo xam ne diine yi ko jiitu woon lem na leen ci biir moom mu ñëw nekk diine joo xam ne yëmut ci jenn jamono yëmut ci benn béréb mu ne waaye ak yónninte goo xam ne itam international la aalamiya la ñu yónni ci ñëpp ci bërëb bu nekk ak ci e, jamono ju nekk mu ne ba loolu amee ci la yàlla tànn tabaraka wa taala ne diine ji mel noonu fii muy déparé mooy mooy néeg bi ñu njëkk a teg ci kaw suuf ngir jaamu yàlla muy màkk kon loolu moo tax yonent bi juddoo màkk ñu yónnee ko màkk mu reñaane màkk euh, gannaaw loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ma jeexalee ci waxu chara yi ma ne yonent bi alayhi salaatu dafa mu masoon a wéeru ci yàlla di ñaan ndax ba mu demee euh, Taïf di fa woote ci yàlla waataay boole boole ko gune yàq xaj yaak jigéen ñu sànni koy xeer ba xaaj ko yonent bi dafa ñaan dal di ne allahuma ilayka ashku daafa quwati wa qillati xiilati wa hawaani ala nnaas ya arhamar rahim ba ñaan nga jeex mu ne yàlla maa ngi tawat jëm ci yow day sama néew ak pexe ak doyadal gi ñu ma doyadal yow yaay nga xam ne yaa mën a yërëm mu ne waaye yàlla bu fekkee eh, merewoo ma rek man ak lu mën a xew faalewu ma liñ ma def toroxlu googu mu toroxlu di ñaan yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg na toroxlu eh, yàlla dégg na toroxlu yonentam bi yàlla bëgg wan yonent bi nag ne ñii dëkkee suuf toroxal giñ la toroxal géccal giñ la géccal danaa la ko wuutalal ak tatagal ca kaw asamaani juróom-ñaar ci kaw aalam boo xam ne moo gën a tedd bu nit muy malawu laala foofa laa lay eh, invité teral la fa mu loolu mooy wuutu geccal giñ la geccal ci taayif ci kaw suuf te it danaa la woon ay kawtif yu mag ci sama kattan ak ci samay mbóot man yàlla ak samay secret ba nga xam ne man yàlla am naa kattan mu daal dina yàlla mi nga xam ne man yàlla mi la woon kawtif yooyu da nga ca xamee ne man yàlla mën naa la dimbale kon kon dootoo tiit da nga ci xamee ne man yàlla duma la bàyyi kon jàppal ci sabab yi rek maanaam farlul jàngal jàngaleel ragalal yàlla góorgóorlul jàpp nga ci sabab yi li ci des nag nga bàyyi ko man yàlla daa la jox nag am tukki moo xam ne ci kaw ngay jëm muy rañaan waaye tukki moomu ak yéeg gi tukki moomu pour teral la pour saxal bu woote pour wuutalal la la nga ñàkkoon ci lepp lo xamne xala eh, xaala nafsiya la woon affaire psychologie bi nga dem bëgg ñak ci ni nga don toroxale moom la lay wutalal waye da nga dajé ci kaw asamaan yi juróom-ñaar ta tagal go xamne musu ko gis ci ndigalal yalla ci malaaka yeek ay yoonent yo xamne ne nañ bu yag sa borom tabaaraku wa taala euh nee na yoonent bi alayhi salatu wassalam ci guddii mu joge makka jëm baytul maqdis جم جسف سنو باركي كم نقول قرآن وخي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء كي بيت المقدس نقف إن تبي كي كي كم جمتي أسمان سنجك dem ci asamaan su njëkk dem ci asamaan su ñaareel ñetteel ñeenteel juróomeel juróom-benneel ulama usira ne nañu asamaan su njëkk fekk na fi aadama su ñaareel mu fekk fa Esa su ñetteel mu fekk fa Yuusuf ñeenteel mu fekk fa Idris juróomeel mu fekk fa Haaruna juróom-benneel mu fekk fa Moussa asamaan si juróom-ñaareel mu fekk fa Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ba mu romboo asmaan yooyu nag léegi xanaa euh, féete na kaw kaw nekk na ci ay pays yoo xam ne yu sell la pays yu am tur amul tur pays yoo xam ne amuñu tur ndax booba tur amut ndax béréb la bu amul béréb amatul makaan ndax daje la ak yàlla te daje buy am yàlla dootul am waxtu dootul am béréb ndax yàlla amul béréb amul itam jamono foofu fa la dajee ak yàlla ñu ne la ñu ne kursi la ñu mustawan la ñu ne rafraf la ñu ne la ñu ne raf la